fu moom dara nga fa kon yal nañ yàlla jàppale ba sunu liggéey bi bañ a niil ñoo ngi ñaanal sunu njaboot yëpp di ñaanal bépp nga xam ne daayira la fu mu mën ndax man maa jëwriñ ci waañ bi maa jiitu si waañ wi maa yore waañ bi yëpp te ñi ma àndal kenn jiitalu ma ba pare dama fakkasal bala ñuy def dañuy ñëw ne ma tànn ma dem lu ñuy def lu ñuy wax ne lu ñuy wax koo ci ne defal mu def koo ne bàyyil mu bàyyi te doo doo ne kenn bàyyi sax ndax fii moom kenn du fi def ci luñ lay tere kenn ku ne tey yaa gën a bëgg sa morom ndax ndaje maam sarfaal noon la koo gis rek jàpp ku ne sa bopp kon jàmm rek moo fi am ci waañ kon yàlla nañ yàlla defal jàmm lafal ñu cat yeggal ñu sunu yéene ak suñuy mébét ci waañ bu baax a baax a baax dafa di leen gërëm ginnaaw bi nu bi nu sant yàlla julli jërëntam ba salallaahu taala alayhi wa sallam santaat sunu yaakaar tey ëllëg Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul waye di jiri ci nuyu ak siyaar bi khalifatul ham bi tarixatil muridiya Cheikh Mouhamadul Mountakha sunu borom yagal ko fi lol tan dag wer ak mbollem jabotuk Serigne Touba gep naka non di konyal ñaanal baax Serigne di fal mom Serigne Modou Mbenda khalifatul maam Cheikh Fall sunu borom yagal ko fi tan dag wer ak mbollem jabot maam Cheikh fal Fall gépp di santat yalla bu baax ci bis bu bi bis tedd bi nga xamne ci lañu nek tay di bis ibrahim yassine di rak ci mam Cheikh Ibrahima Fall xalifa bu baax bi nek Serigne Ngagne Fall guy ngeen di taxaw bis bi chaque année ñukoy taxawé bis mom ni nga ko rek non rek la ndigal la lo xamni dañ ko jot suñu kilifa Serigne Gagne Fall nga xamni amul beni amul ben bis lolu bisu wajurum ba euh, wi nga xamni moko yar jangal ko defal ko lepp mu joge fi ñukoy mo bisu tay bi nga xam binu xey suba jang nañ alquran jang khashida berne turu yalla yi mi ngi nonu ñu yëkëti nga xam ñi ngi ni ci berne yi lolu mo waral bis bi war a war a fa suñuy teewaay ndax lépp loo gis rek liggéey bi Serigne Fall la ndax dëkk bii di Kër Yacine ak Daaru Xafoor maam Serigne Fall moo ko sanc euh, bàyyi fee Serigne maam Saliou Fall indi fii Cheikh Yacine Fall xam ne rakk la ci Serigne bi nga xam ne ñoom ñu topp doon ay doom bàyyam defuñu ko doom bàyyi ànd na fa ndax ba Serigne Fall la feeñ ca moom ba mu feeñee ca moom liggéey bi nga xam ne daayira bi yëpp ñu ngi koy taxawee fas yéene togg ko ñu xam ne màggal du màggal guy fanaan dañu day yendu day dem turu yàlla sëñ bi ñaan yeewee ko ba déwén incha allahu rabbi loolu mooy loolu mooy liggéey bi nga xam daal liggéey bi daal nii rek lay taxawee nii lay taxawee di leen sant bu baax di leen gërëm ci liggéey bi am solo bi ne yéen a ngi koy liggéey waaye nii rek la demee liggéey bi daal noonu rek la demee. macha allah neex rek di kontaan ñoo ngi fii di màggalal maa Ibra Yaasin ci barke sëñ Gañ Fall di ko ñaanal mu yàgg fi lool ci suñu kanam te am wér ak njaboot gi ak taalibe yëpp màggal gi moom macha allah neex na. neex na macha kontaan nañ lépp doy na ci añ yaa ngi nii ak yëpp daal dara manqué wut fii yal nañ koy def ay at yu bëree bëree bëri waa sëñ bi yàgg fi te am mbir ak njaboot gi yëpp ak taalibe yi kontaan nañ bu baax a baax. waaw ñëpp kontaan macha allah màggal gi neex na yàlla nañ ko yàgg fekk ay at yu bëree bëree bëri di ñaanal Cheikh ma dégg dem ba faal suñ borom bàyyi ko ci suñu kanam ba ay at yu bëree bëree bari wax dëgg yàlla faal kontaan nañ. yàgg ko teewe ay at yu baree baree baree baree bare kontaan nañ suñu xol sedd na baak Serigne Touba billaay lépp rek ci maam Cheikh kontaan nañ sant na ñëpp tamit. xam moom dangaa woon naat si guuxum soow ndax kër maam Ibrahima Yacine moom ah, buñ ci wax danañ ci bëgg lool te suñu wasila wi nga xamante ne moom muy muy bàyyi ngañ faal moom ànd nañoo koo xam ne ku pay te woyof lool yëpp ku ànd ak moom ren ba déwén di nga xam ne fi nga nekk foofu la surtout nag ku ànd ak moom ay at ñun bañ nekk ay tout tànk yu ndaw toll ni xale bi dañ doon ànd ak suñuy baay dafa ñëw waaye ñëwuñ beneen kër kër Baay Faal bu mel nii moom mën nañ ne ñuy reeñoo màggal mu ñëw ne Baay Ngeeñ dama Baay Ngeeñ mu ne képp ku bëgg man sama njabot dama lay bëgg daan na ma Ibrahima ma ne ko Fall mu ne ma ki day nako ñaanal waaw ndax neena dafa bëgg mère bi waye dafa defal sama njabot motax dina ko ñaanal mu jël ko kéro ba mu toogee ci kaw loxo ñu ne mo mo jël mère mbacké dama yu yuuxu barke maam Cheikh Fall. màggal gi <laughs> neexna torop day wax deug yalla mbokk bay di bëggee ñëw tok tangal ko fek mam Cheikh rafal nan jox murid mouride murid ñuy ñaan yàlla fekk déwén yàgg koo def sëriñ bi nangal ñu sunu màggal nangal ñu sunu taalibe barki suñu fàllu ak góor yàlla yi nekk si naaj wi ñu yor wàllum añ yeeg wàllum ndox meek ñëpp muy góor ñi di jigéen ñi di mag ñi di ndaw kenn ku ne bëgg lu baax ak dabu lu baax képp ënd la fi ak fi jamono ji toll waaye lépp leen koy sant yàlla mi nga xamante ne mooy boole sëriñ bi di ñaan sëriñ bi nangal ñu sunu taalibe te laqal ñu ko fi yàq agut te li ñu fas yéene si yoon ñu def ko te matale ko. barke Cheikh Rafal ndax suñu jëwriñ yaa ngi si biir waaye amaana dañuy dallu. waaw léegi lan nga wax ci maam Ngañ Fall. maam Ngañ Fall di ko nuyu di ko siyaar di ñaan suñu borom yàggal ko fi guddal aw fanam te wéral ay cëram di ko ñaan. ñu sant bu baax a baax ci teewaay bi nag ak uh, yéeg gi ak jàpp gi xam ne bis moom mhm. bis bu jàmbaro joo xam ni doon liggéey Cheikh Rafal. dama jox do ne doo àndoon Cheikh Fall doon ci tol seigne touba bi ba ni maam Cheikh ni ñëwee njaareem muy muy ànd ak Cheikh Fall ñëw fii wut fi ay tol tok fi di fi liggéeyal yalla ngir addi ngir am lu ma addi ngir ngir Cheikh Fall ah, fee nek nak di fi jaamu yàlla di fi liggéey di fi yar ak njabotam di fi tërbiye ay dongo ba fi joge nak bo fi joge won ci la ay ay njabotam dajalo diko ko ñaanal di ko moy bis moy bis bi moy bis bi ñew ni se si ngañ wutu ko tànk yi mu rek ci la nekkat moy na ci ndigal bayyi tere so gisee bi bi demee ni borom moko sakko ni ndax mom lim mu lepp yalla kessa la dara àdduna ci ndax suko sobam mu wote wote bo xamni ku fi ñew da nga xamni ki kat aduna yitil nako mba mbolo yitil nako ñi tay teew nak ah ño bokk señ tuwaak Cheikh rafal ki di Fall te ndax it aw rek bi ko te jëf te tax ak sëriñ bi ngi leen ñaanal borom def ñu defal tawfiq

na jàmbaar fakk tëdd moom ca bokk ndax kii di Cheikh Modou Amin Dafal gërëm na ko ndax nekk naa moom ba làq moom mu ëlbatiku fi jàll ci sëñ Cheikh Fall Cheikh Ibrahima Fall tey jii nag ñu ànd kook sëñ Amdi Fall du Mbenda di ñaan sama borom yàlla yàggal taxawaayam te wéral ko